mbokki Sénégal namon nañu leen saxaru GTS mo leen di gungé ak ba Touba Ila Touba avec GTS mbokki Sénégal mu ci projet yi gëna mak yi nga gouvernement bu Sénégal dal di am ngir mëna dékilat li réseau ferroviaire yi nga xamné mom leen Sénégal ci zone yi nga xamné ne ñoo fassanti ko ne ci réew grand train du Sénégal SA di len xamal dinañu door li nga xam ne trafic bi nga xam ne won nañ gis ci Sénégal ñu mën len xeyma ci trois gares yo xam ne ay gare de départ lay dal di nek benn bi nek Thiès Diourbel ak fi nga ne Touba way ci magal Touba gi ñu dal di jëm Grand Train du Sénégal SA di len yëgal ne leen danañu door li nga ne doxalum saxar wi fi ci Sénégal Thiès Touba mesdames et messieurs vendredi 1er septembre 2023 horaire des trains départ direct 9h 11h et 14h45 mesdames et messieurs avec les grands trains du Sénégal avec Grand Train du Sénégal SA. Le plaisir de voyager en toute sécurité.